sama bokk bi yi fi nekk ci biir baas bi maa ngi nuyu ñëpp nuyoo bi ak ziar bi di ko teg teg ci loxol sëñ Ali sëñ Aliou Ndiaye mu teg ko ci loxol sëriñ Massamba mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira bi mu séddaleel ñu ko ci mbooleem ku fi nekk ak ku fi jaar ak wax koo xam ne dégg na ko waaye dafa am yitte ba tax àggaliwul jataay bi ak nun lii nag ak sant yàlla la sant yàlla weesuwut daje bàyyi ay ab lal war a nelaw nelawuloo dem ci ab barab di fa am looy fëkkaatu li nga fay fëkkaatu bokk ci liy defar àdduna lii defar àdduna weesuwut li ñuy wax ci sunu làmmiñ ndax nit li ngay wax ci saw làmmiñ soo ko du wax du saf ci sab xol du sax ci sam xel say cër du ko jëfe te bi ngeen fi toogee ak léegi li ngeen fi dégg su doon doy dañ naan dañ naan doy na sëkk waaye waaye ruudu màndi jëmm moom day jëmm moom bu lekkee rek mën naa màndi su naanee mën naa màndi su lekkee mën naa suur ndax biir li ko fees bariwul waaye fi ne mën nga fee toog ba at mi del si déwén saa bu ñu jógee di wax ci yàlla di wax ci yonent bi sag roo di ko enregistré te du màndi waaye fi ne kenn mëntatoo fi ñu taajale benn booli ceeb nga di ko lekk léegi tey nga daal di wàccu wàccu ngay dem kon biir li ko suur lu tuuti la soo gisee tamit espace bi li muy tuuti tuuti fi ne suñuy bët du xëccoo dara loolooy may yàlla moo tax dara jërët xëccoo li gën a ëpp solo ci àdduna mooy defaru defaru mooy li nga xam ne jar na jënd moom la mag ñi daan jël seen bakkan jaay ko gis nga jëmm ji tax ngeen defar baas bii loolu la ko sunu borom xaroote mooy defaru foofu la sëñ Tuubaa rawee góor ñëpp koo seen muy dem rek ku la gën a saf sëñ Tuubaa rek gën laa ku la gën a saf sëñ Tuubaa moo la gën a defaru jërut nag yóotu parce que boo ko yootoo àdduna rek lay doon doo ci jariñu waaye su la leeree na mi ci sa jëmm foo dem foo fanaan fanaan faak moom foo yendu yendu faak moom sa àdduna day jàkk sa alaaxira day jàkk ndax li li ñu wax ñoom ne sëñ Tuubaa bi mu fiy dikk fekk na fi lépp wala lu bari fekk na ko fi li nga xam ne ndax fekk na fi ñuy nodd fekk na fi ñuy julli fekk na fi ñuy woor fekk na fi alquranul karim moo tax ndeysaan baax gum baax a tax daara yu mag yi ngeen di dégg da daan def léeg-léeg mu jóg jël ab tànkam dem ba àgg ci benn dara am fa ay fan ngeen koy faral di dégg dëkk yu bari ñaan Sëñ Tuubaa ñëw na fi xam nga lu taxoon mu di dem mooy doon njukkal waa foofa ndax moom jëmmam sunu borom def na ko noo xam ne fu mu teg tànkam nu rawut ak fu mu tegu tànkam loolu la sunu boroom def ci moom léegi nag muy def léeg-léeg mu dégg ñu ne daaray Longoor Mbay mu dem fa ca daara ja daaray ngiig mu dem ca daara ja kër xaali amar fall mu dem ca daara ja ca keen mu dem ca daara ja fenn fu nekk mu defa fa dem ba Bargny gii ba Kayaar gii fenn fu nekk am na fa jullikaay loolu nag firiwul dara lu dul ki war a dikk jamono te war a yilif lépp te fekk mag ñi doon ko tàmbali mu ñëw war a mottali Sëñ Tuubaa moo nekk ci njobaxtal la mu mot lépp waaw inna la mina ilaa xustu raaba anil kaw ni wa fihi fustu loolu tax mu naan suñu boroom da ko defal loo xam ne amul ci jamono yàlla li mu ko defal mooy daf ko dajale lépp nag mu téye ko ci ab loxoom suñ ko mënoon a misaal dañ naan ni ab yónent mel ci aw xeet noonu la Sëñ Tuubaa mel ci Sénégal noonu la mel ci nit ñi ñuul noonu la mel ci diine yi lislaam bi fi mu nekk bi atu siwal islaami bil islaami wa ubtu xaaniman bila manaami bila malaan Sëñ Tuubaa nee na lu dul lislaam dama koo jaay jëndee ko kon lislaam ji ñu nekk sëñ tubaa daf koo jënd ba mu jar ni mu ko jëndee lu simple la lu neex xam la mooy daf koo jëndee ak jotam ak bakkanam lépp loo xam ne bakkan daana ca fekk nit nit def na ko ñàkk ci bakkanam sëñ Tuubaa def na ko waaye yàlla bëgg mu ne fi mu ne fi waaye fi ne bu fekkoon suñu borom nëmbut mu ne fi kon ba nëgë ni dañ naan sëñ Tuubaa moo woon wala xaadim rasul moo woon waaye nag sëñ ku neex la sëñ ku am solo la ku ku neex ku neex a bëgg la ndax day jàmbaar ku baax la ndaxte xoolal am moom dafa raatale mbooleem ëtt yi fi nekkoon ci wàllu diine yépp sëñ xamoon na ne sunu borom dina ko boole ak ay noonam waaye ci diggante bi mu fi nekkee ba ni mu fi bàyyi ko mu sa jote ak nit ku ñu loolu rek doy na njàngat mus sa jot ak nit ku ñuul ñi ko doon boole ak tubaab bi ak di ko di bind lettre di ci sonn pour bëgg ñu jëlee ko fi pour bëgg mu ñàkk li mu am pour bëgg ñoom seen gis-gis rek la daa xam ne seen gis rek la ndax dañoo jàppoon ne booba su fi nekkee ak ñoom xëy na seeni i penc danañ ko ñàkk wala dana ñàkk seeni seeni seen njaboot te fekk ne moom ndekete dafa ñëw rek ngir kenn ku nekk la nga nekk mu defaral la ko ba mu baax mu bàyyi la ko. moo tax mbaax gi sëñ Tuubaa baax duma ma ne xaw ma xaw ma fenn waaye duma ne gisuma ko ndax wax dëgg sama gis-gis gàttu ndax Sénégal rek la waaye xaw ma ci l'histoire mbaax gi mu baax ginnaaw bu fi yónent bi indee mbaax googu ba pare gisuma ci jamono ku mel ni sëñ Tuubaa gisuma ko ci jamono su ma gisoon nag dinaa ne la ku mel nii gis naa nag ñu koy roy ak ñu koy topp ak ñu tàmbali lu mel ni lim tàmbali woon waaye tàmbali àggale moom saa bu amate amee rek yàlla la neex moo tax sëñ Tuubaa yàlla da ko far ci fu bare bare bare moo tax diine dama naan li tax man diine neex ma man man Xaadim Njaay li tax diineem neex ma mooy lim neex sëñ Tuubaa li tax ma xam ne yàlla dëgg la mooy li sëñ Tuubaa wax ne yàlla dëgg la li tax ma bëgg laay xam ne ab yonent la mooy li sëñ Tuubaa nangu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab yonent la su dul woon loolu fekkuma ko fi kon du ma ko gëm du ko bëgg duma ko topp lu diine rey rëy rëy rëy lu mu fi tegoon ci suuf rek ma teg ko ci suuf dara waralu ko nag lu dul doy gu ma sëñ Tuubaa doy nattukaay ci lépp moo tax diinun siwaa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu balaa dikk laa yuhmadu mooy lu nit ne di ca sonn bay boo nga sonn ci bay boo nga def ci lépp suñu borom du ko gërëm yaa xam nag ndax loo ciy wut ca loola waaye moom nee na ku bëgg li nga nekk sunu borom gërëm ko nekkal ci diine ci diine lislaam diine lislaam méttiwut seetlu leen rek fi ne ba ñu ba ñu jullee géej léegi sunu bopp lañ nekk te pourtant yàllaa ngi ci nun de fi ne am na ñuy nelaw ñoo xam ne bañ jullee ca 9h wala ca 8 ñu ngay nelaw te ba ñu ngay wuti fajar am na ñooñ dañuy nelaw ba mu naaj te ne booy nelaw noonu ay malaakaa ngi téye sa jëmm ji ñi téye pax yi ba dara du ci dugg ñi téye dàngam ñi téye xol bi ba du taxaw sonn ci yow ba ngay ngay ngay battar ñu ko rek te pourtant am na ñoo xam ne ngay nelaw ca armel ya ba nga juddu ba nëgg ni ñu ngi naan la diwa ngi diwa ngi woon fii dangay dem yàgg armel ba raaf doo xam ci lu mu nekk yi ngay yëngatu di ci góor góorgóorloo ndax loolu mën na la man nekk reserva loo xam dañ ko la koy réserver dañ la koy réserver foofa nga di ci coppati ba barsàq amul kenn ku ko mën ko mën ne ko man ne ko man ne loolu mën na maa garanti kon yërmande yàlla ak mbaaxu sunu borom ma fi nekk waaye li nu war kon ñu góor góorlu xam ne sëñ Tuubaa góor góorgóorlu ci diine lislaam ji moom nga jàppale sëñ dañ koy jàppale ci lislaam danga nga koy def physiquement def ko verbalement di ko wax di ko doxi waaye rek bañan a bañ doxee nii jamono di doxe ñu ñëpp xam nii jamono di doxe ne dara baaxu ci ndax ñoo ngi nii ba su set ma wax barki laa ko wax ci télévision ma ne bokk na ci li ma gën a naqari fi mu nekk mooy jël ak xasida naan nañ ko jàngale politicien dañ leen waxante dëgg dañuy jay suñu bopp rek bëgg sëñ tubaa gërëm bëgg sëñ tubaa nanga barki sëriñ tubaa mbàkke bu sëñ toogoon fii yow nga wëlbatiku naan xasida gi nañ ko jàngal diw sàngam mais bésub keroog waxuma la moom doo def mais malaaka lay fàdd nga leen moom mi ne woon bàyyi leen suñuy wax di jàng xasida ngeen di bërëxal ku bërëxal malaaka yi dañ lay bërëxal ca sawara ngay jël xasida gi nag walbati ku dem ci nitu ko àdduna kuy wut àdduna képp naan nañ ko jàngal xasida gi jàpp na yaa ci nekk dangaa def loolu mënal na ko dara dara la ko mënalul te gis nga àdduna ku yebu tey gis nga yàlla bu nit ñëpp àndoon maase ne lii lañu bëgg te yàlla bëgg ko kenn mënut tax mu am nañ leen dal ñi ma ci gën ñi ma ci gën a jàppal ak ak jàpp mooy sama bokk taalibe murid yi ndax loolu dafa rafetul de dem fu ñu manifester nga teg ay lal naan dañu jàng xasida lu ma fóoti yaqul lisaanul xaali lii kun xadima man xamaaka anil akdaari billaay saara yi yu xaati bu ni maa xidali bim da xam na ko madiyaana ajiban mufhiman faiq ar-ra'yi ñaar yooyu nekkal xaadimu rasul yàlla wax ko ko mu nekk xaadimu rasul mu ne ko wayal ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne faraxtoo bi xidmatin laa saani laha min ximin lay mu ne bégal naa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bégal sunu borom ba sunu borom wax ma ne ma ba rasulullah wax ma ne ma li nga defal rasulullah kenn dootu ko defal loolu ti ko naan nañ jàngal diw mu nañ jàngal na boo ko jàngal mu mii dafa tax dafa tax ki ki ki nga koy yéene parce que da jël ngajjukaay dóor ko fu ñu ko soxlaa woon xasida loolu ko tax ko jóg xasaayid defar nit a tax mu jóg xasidati faaqat xasaayidal kiraam la sëñ tubaa xum wala taxudu abadan sëñ tubaa ne sama xasida yi gën a kawe xasida yi mboolem gaa yi baax ci fi nekkoon te day faj ajo dangaa def loolu aajo aajo yi àdduna taxoon na sëñ tubaa jóg bu fi jógoon kay kon mu xëcc biñ ne ko léegi dañ lay fal nga nekk sëriñ aweef mboolem li français yi yi yi lépp yow yaa nekk sëriñ bi mun leen déedéet ñu ne la ñu ne la yow lañ bëgg moo gën ñu jël la teg ci kanam nit ñi ne yow lañu fi teg tey mi ngi nii ñépp ne sëñ Tuubaa yaa nuy moom loolu rek la bëggoon te am na ko li tax mu am place bi mu am sëñ Muntaxaa ngi nii seetlu leen sëñ bi fan yi liñ koy wax xuloo naa ci ak ay nit te ay kilifa lañ de barkeb sëñ Tuubaa ndax àdduna dalay jàpp ba dootoo ko tey àdduna baaxut nga defe ne li nga nekk dëgg la te barke Serigne Touba Mbacké du dëgg barke Cheikh Ahmad Bamba du dëgg da ngay toog toog ba mu yàgg rek nga gestu jàpp ne def nga dara dara ay Serigne Touba Serigne Mountakha dafa war a wax looy wax day dem ca kenn ko hee eh, bàyyi leen li ngeen def du ko def de ab sëriñ loolu du rôlam fii du république islamique fii laïque la nañ leen bàyyi suñu caxaan nii nuy def ku ne nag faral ku la neex jëlal sa carte dugal fu la neex àndal ak ku la neex yuuxul ba doyal waaye nag ñu fi am moom muy sañ mun Muntaxa xasida yi waaye waaye nañ na ko fi baal ba nga koo xam ne ki day santaw santam toog ci digg réseaux sociaux yi nga xam ne ba ëllëg si biir bu ko ay doomam gisee xam nga day dem yàgg politique day xewi da ngay rus parce que dama ne leen man dara def ma ci safu ndax 2012 ñëpp xam nañ ci ci ci diggante ñaari tur yi am na fi waxtaan bu ma waxoon dañ koy déglu ci benn restaurant ci Siin dem ba mu yàgg lu am ko ne kii fan la dëkk ñu ko kii dëkk senegal tey ñi ma ci xam su ma toogoon fii di ko lim am na ci ñoo xam ne dañ ma woo téléphone ñu ñu ne ma waa yow suñu xam nii nii nangam ak nangam wàcc naa sama sama sama ci te rajo bi ñëw am ñu ñëw sama kër ne dañoo defoon ne bu ñëwee dañ lay jàpp. man leen ma wax dama ko wax ngir yàlla bi ñu fi jàppee Cheikh Béthio kan moo ci yëkkatiwut aw aw aw aw aw kenn ci senegal man seul seul man seul. te kat parewuma ko damaa dem ba toog ba bëgg a def émission parewuma woon loolu de loolu lañ tuddee lisaanul xaal rek ñu film ma dem wax wax wax wax wax la ma ca bëgg wax lépp dane leen nag sëñ Saliou fi nekkatul rek te olof nee nag gaynde dee nañu neet noote sell ba noonu laa ko waxoon keroog bu fi sëriñ Saliou nekkoon lii du am te billaahi ba léegi yowmal xiyaam sëñ Saliou du ko fekk buntu aljanna wan ko ginnaaw moom mbooloom te boobu neexu te moo tax bu gaa yi di wax lii ay raxasin rek la wax am na ñoo xam dañuy wax rek pour bëgg ëllëgër si biir bu kii toogee faale leen am ñoo xam ne dañoo am ay problème seen gën a bëgg ko réglé dañ leen bàyyi suñu caaxaan loolu doxul murit caqub la murit ak murit du alali baadolo la suñ fa loo ko xoon doole ji ci murit baatin bi ci murit rafetaay bi ci murit bëggante gi ci murit def lu baax gi ci murit jël alal ngir jëmmi sunu borom nga def ko ci yoonu yàlla gi nekk ci bi murit ñu dem ba benn bés wala benn moment nga ba ko yàq pour la ku mënta xàmmee ñaari yooyu nag sëñ bi daanaka jërëjëf ngay doon murit ak murit moom dama man daka jekk ca ca boobu laa doon wax ne man sama carte sama murit fekkiwu ko. bu ñëpp ne woon tey jii nañ bàyyi kii sëñ bi ne kii la àndat ma ànd moom man foofu laa nekk ku nekk nag yaa ngi jaay sax murit saadix man xaw ma murit saadix buy won ginnaaw xalifa sëñ Tuubaa xaw ma ko de loolu mu amul ci dictionnaire murit mag ña fi ne woon bu sëriñ bi masaan ne nañ leen dem xare ñëpp ay jóg léegi takat lu ne lu ne sëñ bi def na ko fi ndax sëñ Tuubaa dafa nekkoon ab jullit ba noppi nag nekk patriote ndax weesuwul bëgg bëgg sama réew tubaab yi koy jëlëb xaalis di leen jox pour lan te xamoon na ne ñoo ko noonu te mu jëlëb xaalis di leen jox tey ji boo day déggee ñu ne sëñ Muntaxa joxe na ci accident bi nag ma waru ko woon jox parce que dafa lii parce que dafa la joxu leen ko de ay njabootam la koy jox ndax sëñ Tuubaa moo yëf Sénégal benn sérif benn benn mu xaddama ma ko waxoon ca wërëso gi bàyyi si Ahmad Tidiane dama faa xëy gis xar yi nekk ci marché bi di wëndeeru rek di yàq rek am ko ne waa ji di cerno bi de nee na xaram yii li muy yàq li muy jàmm yàlla ko ëpp doole ma ne ah yàq ni mu toll fa sunu borom kooku de dinaa ko xam daal di wàcc école boobu maa ngi fay jàngale waaxu rek jëm këram bi ma waaxoo bay romb ndeke mi ngi toog nii ci koñ bi mu ne nikk ci sama kiwu caay ji téye dana yaa xamadi booy dox sa kër sëriñ da ngay sol say daal ma ne ko maa ngi jéggul daa delluwaat ginnaaw summi samay dàll loolu mooy murid bi ma summi samay dàll àgg suuf nuyu ko mu ne ma lu doonoon say tànk te loolu la ma njëkk wax de yaa xamante am na gor yi tey ku leen ko waxoon tey dañ lay firnde wala ñu wala dem seen yoon ma daal di toog nuyante ak moom ne ko dama fi ñëw man maay ustaas boobu ustaas lañu may wax maa fi ñëw ngir siyaar si la waxuma ko nag lee ma dégg waaye dama fi ñëw ngir siyaar si la boobu sëñ Aliou Mbacke kii xam na sëñ Fallou Mbacke boobu ñoo fa bokk nekk rahmatullahi alayhi ma delluwaat ci kër mu ne ma kon da ngay delluwaat ba beneen bés nga dellusiwaat daal di may wax bés ba muy dellusi bés boobu arrangé ma mooy yor-yoru alxames ndax boobu jàngalewu ma ma jóge fa yor xasida ko min na lu baax baaxil xadim min na lu min na lu baaxil xadim xasida baraani euh, euh, baax yi baraani ma jël ko dugal ci sama jiba bi ma dikkee nuyu ko fekk fa. keneen ko fa nekk ku sant lii ab sëriñ la mi ngi lal ab der toog jublu penku kee toog ci pegg manit ma ñëw toog ñun ñett ñu bokk siq der bi mu daan ne ma euh, na nga def ma ne ko maa ngi fi mu daan ma lii nga yor lu doon ma ne ko lii di xasida la ma ne ma jox ma ma xool ma jox ko ko mu ubbi ne gaa yi liiraat daal di ko jël teg ci dënn bi teg ci teg ci teg ci teg ci jëbi teg ci dënn bi daan ne ma da koy jox àddee ma ne ko jox naa la ko àddee mu daan ma gis nga gis nga ñun yéen murid yi mu ne ma yéen murid yi da ngeen di da ngeen di wax ne sëñ tubaa suñ sëriñ mu ne ma xanaa xamuloo ne sëñ tubaa fi ko yàlla yéegal kum neex kum neexul ku xam ku xamut mooy sab sëriñ ndax dafa tiim ñëpp loolu la ma wax loolu rek laa bëggoon wax moo tax ma indi histoire bi doon moo laa doon naan Sénégal sëñ tubaa yàlla dafa dajale lépp teg ko ci njobbaxtal la loolaa tax foofu lay tuddee mu jaddi loolu tamit ngay xamee dimension sëñ tubaa waaye su fekkee dafa ràngandoo ak sëriñ si nga naan sëñ Touba moom ci sëriñ si nii déedéet la sëñ bu xaadi doon wax ne sëñ Touba amul morom mu ne foofoo gën a baax kon sëriñ tubaa bi mu ganee jamono fii diggante Bawol gi diggante Saalum gi diggante Kajoor gi xool leen amul duggut ci université su ma fi xamee fu mu fi dem de mooy gànnaar dellu siwaat te mooy dem fa jaale jël sëñ Mamar Anta Sali Mbàkke ña nga xam ne dañoo séqoon ak tër ak ak ak ak ak wird muy wird xaadir mu bàyyi maam sëñ Dam Abdourahman ak daara ji dem fa dikk gànnaar xoolaale fa kaggu yi seen seen téere yeeg seen yooyu bi mu dikkee gis ngeen silsilatul xaadir yooyu bi mu taalifoon ndax daa fekkoon néeg sëñ bu soobee ñoom yoroon xaadir sëñ moor moomu yor xaadir ñu ci bëri ba wirdu woowu sax sëñ Tuubaa wéy na di ko joxe ba ba ni mu ñibbi si géej ba ci wirdu Seex Ahmad Tijaan wii kon sëñ Tuubaa sëriñantewul moroomantewul ci ci jëriñ ndax ab sëriñ du jël aw wirdam di ko jël moroomam sëriñam ndax kon su boobaa su ma joxee sa wird kon dama lay yokkal say taalibi kon ay taalibi taxu ko war a jox waaye bu ab taalibi jógee lam bëgg ca digganteem ak borom te ab sëriñam amu ko ca sëñ Tuubaa koy jëlee fa sunu borom jox ko te bu ko jox da koy jox sëriñam mu jaar ci moom mu jaar fi mu nekk nii xool leen rek dëkk bi Sénégal gii soo xoolee tey lim jaboote te wax naa la ne bi mu fi dikk fekk na fi lépp li ma la bëgg a wax mooy daa ñëw Jolof fekk fa ay këri diine ak ay daara ndax ñun ñëpp xam nañ daara maam ma Samba Thiam bi nga xam ne maam Maram ak maamam fa lañ xamante woon na fa daaray kokki te suñ kokki di maamam ma wax la daaray maam Xaali Amar Fall fii ci kon daara yooyu yépp tey boo fa demee ay njaboot ya fa nekkoon ba ci daaree longoor tey boo demee Touba fekk fa fekk fa askan yëpp maanaam li nekkoon ci réew mi lépp da koy xool tey sunu borom dajale na ko ci loxol sëñ Touba kon léegi lépp daje na ci moom moo tax ngir nga xam dëgg-dëgg ne sëñ Touba kat dafa dikk yeesal si diine lislaam mooy li tasaaroo ku ne am ci dara loolu la fexe ba boole ko ba ñëpp bokk leen mooy bu njëkk. ngir nga gis kenn rek man lépp lu mu bëgg ñu defal ko ko loolu jafe woon na mooy jaamu yàlla ci dal def lu baax di ko wax di ko jëfe te doo ci yaakaar leen ni àdduna mën a jaay sa bakkan bii ngir jëmmi yàlla bu njëkk ak cat doo fi ma fi nekkoon nit ña mooy sunu maam yi da daan jaay seen ak cat seen seen bakkan ngir lan ngir jënd ak ngóor gis nañ ko ci fu bare bari ci réew mi gis nga seen bal yooya ak seen junjung ya ak seen gënnuy tuxu ya xam nga neexoon na ñoom lool ak seen waxin ya sëñ Tuubaa rekk dikk indi leen lu lu fees seen bët ba mu dikkee lañ doon gis ci ceddo lépp ñu sànni ko fële ndaxte dañoo gis ku dem ca sëñ Tuubaa boo dikkee soo dikkee dootoo kekkantoo dootoo werante dootoo wutal sa bopp ak jot dootoo tooñ te ku tooñ nga fayu te ku la tooñ doo fayu dootoo wax lu dul dëgg dootoo dem di fréquenter ay jigéen dangay am sa fayday bopp di wut yàlla ci suba yi di ko wut ci marax yi ñu gis la saa bu nekk ngay sëgg di yuur li ngay yuur lu mu doon mooy mbindum Sëriñ Tuubaa mi mu dee yàlla ak sunu borom ñu gis ne balaa dem diir bu gàtt mu yor melokaan woo xam ne saa boo yëkkatee sa yare loxo ne ko jëy bu la taflee soo demee sa aajo faju te nit ñi kat aajo faju képp lañ bëgg mboolem liñ doon wut ci buntu fetal yépp aajo faju rek a taxoon ñu di ko wut ak àdduna te Sëñ Tuubaa dàq àdduna moo dàq lépp ndax aqbalati dunya ilay xablu wa bi'atuha fa daala anil mooy àdduna daf ma wut si woon waaye ma ràññat le àdduna ak ya ci biir mooy ndekete mbooloo mu bari di noosoo mbooloo mu bari di laaj te doo jëfal lislaam doo ko delloo suñu sunu borom loolu yépp àdduna la suñ tubaa xàmmeel nu ràññeel nu àdduna ak àllaaxira sëñ Moustapha am suñu laaj baram moo ma wax ne ma sëñ Fallou moo ko nettali ne ko bi sëñ tubaa ñibbisee géej da ko woo moo sëñ Modou Moustapha daan ne ko Mouhamadul Moustapha mu ne ko Mbàkke mu ne ko Mouhamadul Fadlil mu ne ko Mbàkke mu ne na ngeen nangoo jaamu yàlla nangeen nangoo jaamu yàlla na ngeen nangoo jaamu yàlla daane leen su ngeen nangoo jaamu yàlla xam ngeen li ma leen wax su ngeen ko defee lu mu leen di jural mu ne mu ne lépp lu ngeen bëgg wala lu ngeen yuutu wala lu ngeen jub suñu borom jël ko jox leen daane leen su ngeen ko nanguwut gis nga li ma liggéeyal sama boroom ba sama borom faye ma ko yàlla am na fullay def ko ci ndunkay pël muy dem di wéy yaakaar na loolu lu def mooy li nekk ci murid maanaam liy faj ajo ci taalibi murid yi yàlla am nay fule buñ toppatu yàlla mu jël ko roof ko ci bopp gone pël guy wéy muy dem. nee na bi muy bëgg a dem géej àdduna dafa dikk bëggoon a dox digganteem ak liggéey boobu di ko loo xam ne su ca newoon tey jii wala mu sax ca lii munu defal duñ ko am mu defal duñ ko am te mooy lan mooy fajug aajo gi nga xam ne ci yoonu géej gi la ko amee. bi rek la suñu fat suñu aadi yi nga xam ne dama leen a taalifee ci fas jër dara jàngal rek soo jàngee ba noppi rek la nga ci bëgg daal daal da nga daal am na ko bëggee koy daal di nekk fanaan damaa bëgg lii damaa nangam damaa nangam jëru ko xoolal kooku li mu wax foofu ci xasida yi léegi nag bi ko àdduna wutasee mu woon ginnaw àdduna man fee bàyyi nit ñi bàyyi fi ndey bàyyi fi bàyyi bàyyi fi dëkk ndax ku mën a dem ba sañ ci dëkk kon kooka beneen nit nga woon te sëriñ sa fi dikk nekkoon bu njëkk ay taalib rek lañ bëggoon koo jox wird mbaa nga jox ko turu yàlla yaay doon ab sëriñam mbaa nga jàngal ko alxuraan loolu fi nekkoon loolu lañ daan wax sëriñ sëriñ siw sant sëñ Tuubaa ko fii nii noo mën a mel rek tey jii bu fekkee ne man maa doonoon sab sëriñ jóge fii tey sama doom daal di nekk sab sëriñ loolu sëñ Tuubaa ko fi indi te sëñ Moustapha Guèye Yerwaay nee na ku ma sa dikk ci àdduna di liggéeyal yàlla am nga loo xam ne moom mooy sa mbirum bopp moom nga fuglanteeg jamono mooy li nga xam ne ñëpp dañ la caa ber kenn du la ca fekk sëñ Tuubaa nag lim am te kenn fekk ko ca mooy barke barke barakati waasiatun waa si atum amul kin sil hibaati shafiya sëñ Tuubaa nee na yaatu na lool te dafay des ba faaw kon jarul xëccoo man damaa defe ne lu nit yambare yambare yambare bu góorgóorlu am barke ci Sëriñ Tuubaa fi nii da ngeen di xool jàngkat yi léegi tey booy commencé jàng léegi te nga changé gaa yaa nga ca koñ ba fa nga dem doon romb ca koñ ba di bëloot ak di sol seen seen loxo yi seen poos yi di saaga ndey di wax yëf te xasida yi dong moo tax ñuy sol yëre yu baax nii di yiwee ndax nurootu ñoom ñaar fréquentation ba nga doon am di jël bal di jubilé ci mbedd di langal ay tubay da nga koo seexlu léegi lu tax parce que buñ la gisee dañ naan la sëñ bi na nga def jàngkatum xasida nga léegi liggéey boobu nga am kon sëñ Tuubaa la defal pourtant fi ne yow mënoo koo delloo loolu ndax yow sab dépasse say déplacement sa col sa lépp ci xasida day nga ko jëlee kon kay boo damay liggéey sëñ Tuubaa mais sëñ Tuubaa la ëpp moo gën a gën liggéey ci yow waxin la rek ñun ñi ñëpp kenn ku ci sëñ Tuubaa di fanaan ak yow ci sablal amul du xëccoog yow sa kër kon dañoo ci yàlla ba ñu dañoo woo ci ba ñu wuy si mu yàlla ki xamul nag day jàpp bu ñu ne kaay leen liggéeyal sëñ Tuubaa mais ah sëñ bi kaay barkeelu ngir sëñ Tuubaa nga jàpp ne léegi sëñ Tuubaa moom mi ngi koy defal tiyaaboo ja loola lay am képp kuy njabootam luñ jëf ci lislaam loolu da koy fekk mi ngi mel ni ki ni allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim saa boo jëfee ci lislaam sunu borom da ciy fay yonent yàlla muhammad ñun la yàlla yaatoo sëñ Tuubaa yar ak njabootam ñun ñëpp ñu di leen gis seen njaboot xoolal seen njaboot seen col niñ nekkee ay nit xoolal niñ correcté xoolal Cheikh Modou Basir ni mel maa ngi gis fan yi ñuy ñuy jàll image am ndeysaan boo gisee da ngay jàpp ne sëñ Moustapha Basir nga gis ab image am ci xam naa RTS ñoo ko génne ca yàgg ya mi ngi sol grand bu weex mu ngi ci mi ngi ci Facebook bi laa ko gis fan yi ñu publié nga xool tey ñi ñu fi jamono teet sëñ Ablaat xool Serigne Chouaïbou xool. sëriñ Saliou mi fi bàyyi ko barki démb soo leen xoolee ay nit ay nit ngay gis yoo xam ne dañoo correct sol col gu yiw wax wax loo yaru yaru boo ñëwee seen kanam ñu gën laa yaru xool sëñ Murtada sëñ fu ne ci àdduna dem na fa ñun ñi dem kooku lix tax koo jóg mais pour ñu xam mos sëñ Tuubaa moo tax fu ne mu teg fa tànkam ci àdduna liñ ko jox bu fekkoon da ko tabaxee ay bâtiment tey kon ñaata ñaata building la fi sëñ Mourtada di sëñ Mourtada di bàyyi amul ab daara la fi bàyyi li fi gën a ak ay oto yoo xam ne ku jàngee ci daara ji jël ci mu def ko def daal di ko def wax waqfu lillaahi tey état baa ngi nii di soog a def fu kon sëñ Tuubaa dafa jiitu jamono. dafa defar adduna defar boo xam ne bi fi ne bu fekkoon Sénégal dañu wëlbatiku système boobu nag ñu dugg ca moo gën système yi ñuy coow ko xuloo ko xeex loolu mooy système bi sëñ Tuubaa tëral te procédure société la ba nag ni mooy defar xoolal ni ñu bi réussi mu Moustapha lii banal xudduus madrasan diyaayeesul as asa wal jël wal kamado léegi école baa ngi nii taxaw na muy université bi tey sagu na ci noonu ñëpp ñun ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ci am mbégte ah ñun ñëpp ci am mbégte dañ fay jàng daara alquran tey xoolal alquran ni ni ni maanaam ci turu sëñ Tuubaa fi mu àgg tey ci ci murit gi. bu fekkoon boo jëloon tey sëñ Tuubaa moye ko waxoon naa ko bu yàgg ca at yu njëkk ca France fokki fële mooy mooy cant gañ daan defale ma ne leen sëñ Tuubaa moye Sénégal égal zéro booba woon góor gu bañ a tee jur ab taalibe murit bay ba nga takk sa tubéy waaye ku fi takkati soxna sëñ Tuubaa dana jël wàllam ndax taalibe yi danañ dikk te kenn du ko denc sam sàq ndigi góor yi rek a koy jël foofa la woon mooy ca rond-point ba xaw ma am na cant yi xaw ma fàtt naa gaa yi ko daan def ca côté Médina waaw lu laa leen faxoon ma ne ku bañatee jur mu murit bay boobu moom nga takk sa tubay bañ a takk soxna waaye ku takk soxna juri doom taalibe suñ tubaa dana ci juddoo far force ndax ñi ko yàlla booleet ci mbooloo fa mu ko tibbee fa yónent doon tibbee suñ tubaa fa mu séddoo fa mu séddoo dafa bokkut ak fa sëriñ si séddoo nee na ñoom dañoo wéy ci xel diggante kun fayakoon ak am xel moo ñu tàggale ñoom nee na ñoom dañoo wéy ci xel man nag sama boroom tënk ma ci kun loolu kenn mënu ko taqalati waaye nag li lay tax a xam ne loolu wér na moom de daa mujj ñëw suñu laata misaaloon ñu ne ngontam mi day li muy li muy yéex yéex a dikk ña xëyoon noonu la ko waxee ci aw waxtaan mu doon def ña ca suba ba mu dikkee ci ngontam li amuñ lu dul rek te yaakaar naa ne loolu ñuy wax euh, kii. Euh, dem ci raafal dara ma xam nu ñu ko tuddee te boo demee ci marché mooy boo demee nit ñi di wanteer kenn ku nekk def nga fekk fa ñuy jaay lambale ñii nangam Sëñ Tuubaa bi mu dikkee ci marché bi dafa fekk ña lambale woon ak ñi indi marché di suñu bëggut ak lépp mu jël yëpp. ramassé mu ko ramassé lépp daal di koy moom fa jaay ko jaral lépp nag kenn ku nekk mu jox la ne la demal ñibbi sëñ Moussa Gueye nee na yarawaay nee na Sëñ Tuubaa mag ñi dañuy wër dugg ci xur wi di rëbbu rab ba sonn ci lool digg bëccëg jàppuñ dara ñu toog ca kere di nappul ku nekk di xaftandi nee na de al am te kon lu dul rekk am ko dem fekk rab wa fa mu nekk mu jam ko ba noppi wëlbati ko watat ko ñëw fekk leen fi nekk ne leen jëfandiku leen kooku mooy Sëñ Tuubaa moo baax noonu la ñu rafetalaatee suñu diine lislaam léegi nag seetlu leen bi mu dikkee bi Sëñ Tuubaa ñibbisee géej nga xam Tuubaa bi xam nañ ne manqué léegi amatuñ Euh, amatuñ maanaam xajatuñu ak sëñ Tuubaa ci réew mi rek ci misaal dañu commencé di retiré ñoo gën a yeewu gis nañ ne fu mu teg tànkam nit ñi dañ ko bëgg léegi dañu dem ne ko dañoo bëgg a juboo ak yow daan ne ko France nee nañu biñ koy indi di ko di ko invité daan ne ko France ki nekkoon gouverneur bi daan ne ko France ama yónni nee na daa bëgg a Maroc yow fekk bayit woowu bindoon na ko bu yàgg joxoon ko sëñ Masamba Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko bayit yi na nga ndax sunu borom xamal na ma ne ma danañ dem ba jëmmi jamono tubaab bi bëgg a man mooy lam nii ni fisqun wala iqaala yowmal amiru la yanal maqaala day bind ba agsi ci bayit boobu yàlla ne ko bayit bii de tubaab bi dana mas a toog nga toog muy maroo ak yow sëñ tubaab jël bayit ba daal di koy jox sëñ Masamba ne ko mokkal ko ma sëñ Masamba mokkal ko takk ko fii ci ndakaaru kero bi ñu dikkee fii la ko la ko waxaat yëkkati ko Masamba mu yëkkati bayit boobu kon nañ ne ko woon a jàpp dañoo dañoo dañoo jummee jër woon ñuy def ak moom ndekete suñ ko defoon ak xarit jàpp ko ànd ak moom liñ bëgg ci réew mi danañ ko am te duñ am benn jafe-jafe ndax ndekete bokkuñ ak moom bi mu ñibbisee ñu walbatiku di def tubaab bi daal def benn benn benn rapport daan bo léegi moom ñibbisi na ci am ñoo xam ne mooy ñi daan ñi daan ñi daan jaxase daan ne ko waaw léegi moom ñibbisi na mais taalibe yi nee nañ moom yéen jàpp leen koon moo leen jàppoon comme li ñuy wax li loolu wax nañ ko wax nañ ko borom Ndar nee nañ yéen jàpp moo leen jàppoon dafa bëggoon a jaamu yàlla ci sell am lu mu doon yootu jotu ca moo taxoon ngeen ànd ak moom dem fa kenn nekkut ba mu demee ba am loola ba bopp mu ñibbisi waat ñu ne ah loolu la wax ñu ne waaw léegi ñu yónnee kajoor ñu ne leen fóoree kajoor yeeg bawal ak njàmbur yépp kenn waxtaanee lenn lu du sëñ Tuubaa boobu nag moo xew boobu lay soog a ñibbisi géej. loolee bokk na ci li leen déranger ba tax ñu jëlaat ko dem te demal demal ca yaa jumlatin xadd sàlla soo bi dalaalihim man nam yakun waladun aw waalidu da nga gis ne moom soxlawul dara lislaam la bëggoon mu taxaw nit ñi li leen yàlla wax ñu di ko def te mooy jaamu yàlla bu sell ànd ak seen sago ak seenum xel dina mën a jaayante ci yoonu yàlla wi fii ab yonent dafay dikkut yonent bi mu fi nekk sallallahu alayhi wa weesu wutoon lii ñu def nii mooy ñun ñëpp ñu nangul yonent bi jox ko suñu bopp bu subaa bu nañu nañ leen dem xare ñu dem xare ku faatu boo dikkee sa soxna ne ah alhamdulilah rabbil alamin ba sama jëkkër sahidi doom jahit ne alhamdulilah rabbil alamin tey jii boo xoolee loola système booba doon doxal loola mooy mooy système murid gi li fi nekk nag mooy ay jumaa la ñuy defarloo ndax suñu laat nee na ñooña dañoo leen laajoon seeni bakkan ndax jiyaat ci lislaam la bokk ñun nag laajuñ ñu suñu bakkan kon lim ñu laaj ci yoon yi nañ koy def te nag wattandiku lool di jam xalifab sëñ Tuubaa lu waaye wax daal na ko fi ba lu waay mën a wax ci àdduna nañu ko fi baal ak koo mën a doon boo doon malaaka di demal ci kaw bi man boo ko wax sa foofu kon nag loolu mooy lislaam mooy innamal mu'minu lazina aminu billaahi summa lam yartaabu aminu billaahi wa rasuli summa lam yartaabu wa jaadoo bi amwaalihim wa anfusihim fii sabilillahi mooy nit ki day nangu te du am sikki sàkk ay dut képp koo gis muy am ay sikki sàkk nekk gut saadix saadix mooy koo xam ne amatul sikki sàkk yaram bi amu ko cër yi amu ko xol bi amu ko roogi dara moo tax ñu naan al murid yatalawwanu fil fil fil yawmi mi mara aksar min arbaina mara moo tax ñu day soppi ko ci bés bi di soli mbalaan ci bés bi mën na cee sol ñeent fukki mbalaan mooy lan su ma ñëwee fii ñu ne dañuy def jàng ma ñëw taataan ci taataan sama xel taataan sama xol dékk fi dem ñu ne mu Moustapha ne kaay ñu seeti sama xarit parce que seeti xarit nga ne la ma fas ci la ci suñu boroom diggee dem seeti xarit ba ñu ne ma sama bàjjan dafa tawat ma daal jóg dem seeti ko sëriñ bi woo ma ne ma kaay jàngal dañuy jàngat nga daal di ñëwaat tasaat kaamil bi nga ne ah sama sëriñ kat digaloon na ma naay jàng xasida ak sàngam nga daal di jàppaseel jublu penku ci saase jàng ko te yooyu nag doo yëgaat nag naan def naa nangam def naa nangam déedéet da koo def que rek dañ la ko digal ngir jëm yàlla. doo ko jaamu ngir bëgg mu dugal la aljanna doo ko jaamu ngir ragal sawar donte nag yàlla wax na ko. allasina amanu wa amilu salihaati tuba lahum wala lu mu ca a teg dana leen dugal aljanna loolu tarxiibu nafs la bakkan la ñuy xëy loo xam nga bakkan gis nga lii tax nit di takk soxna loolu bakkan la lii tax nit di lekk di naan loolu bakkan la. lii tax nit di soxat di daw fekk kuy dem nga jam ko paaka nangu ab ab pasetam kooku bakkan la li tax ngay dem fekk sa lu ñu tere nga jël tux ko walla nga na te jiwu la balaa dem diir bu gàtt lakk say pomu ñaare lu ci bari lu la yam yàlla lu mu tere nit su ko di def léegi nag loolu nit ñi doon def bi fi sëriñ bi dikkee mbooleem ñu ca nekkoon ñépp dañ ko fa teg fël ndax xam nañ Sëriñ Tuubaa bëgg ko ñu ba ko xoolal Ibrahima al moom mu daan tox te daan yor gënn ga bi mu dajeeg sëñ Tuubaa te Malaa Min Jóob di kon te sëñ ko ko yor gënn gi tox ne bi sëñ bi jógee géej mu daan sëñ bi daal di koy wuyu ndax naar la mu daan ne maada qaala al ulama fi hada maada qulta fi hada loo wax ci lii sëñ bi ne ko ifal wala tasal jëfandikul rek te laaj mu ne ko déedéet ndax boroom xam-xam yi dañoo wax li dañoo wax laa mu ne ko soo demee ci axdar yi wax na ne kon mukallaf araam na ci moom muy jëfe lenn te xamul àtteeb sharia ba moo tax soo toogee na nangam waaw araama luñ ko mu koy dafa lii léegi demal ci tontu boobu Sëñ Tuubaa tontu woon na bu yàgg te fi ne ciri sol lu gàtt ak tux po nag naan def yu bon bi lépp mu ngi ci alxikma soo demee ci téere bi danga ko ci fekk mu détaillé ko col gu yiw waxin wu yiw bañ na ko ba léegi kàddu yi mu murid yi daan jëfandikoo tasaaroo na fi na fi kàddu yu bon yi fi nekkoon ku am noonu nag ñu waajalee la noonu àdduna munta tax a tax tax tax tax ba nga war koo changé Sëñ Tuubaa bi muy dikk jamono di liggéey dafa bañoo nag ñu bañ a topp àdduna gi bañ topp bànneex bañ a topp seytaane bañ a topp bakkan kon nag soo xoolee faaraxtu iblisa wa jamii al mafasid taqalikoo na ak seytaane muy iblis ak lépp lu yàq lépp lu bon waaye wa bisimilah laa samtu rasulullahi laa damtu rasulullahi taqoo naa ak Seydina Muhammad wa jami al masalih ak lépp lu baax lépp lu yiw kon nag ku taqaluwut ak lu baax loolu lay kon classé nga sa bopp fenn ku teqali ko ak lu bon dugg nga ci Sëñ Tuubaa kon day mel ni noonu rek la suñ doon wax ba fajarit li fi jiitu rek lañuy wax yal yàlla boole dimbale na leen gën a góor góorgóorlu jàppaat sëñ Tuubaa ak murit mooy melo wi ak sew ak li ko sëñ bi waxee rek mooy li ñu doon waxtaane ak murit du riir mii waaye sëñ Abdoulaat newoon lu àdduna riir ñun doomi sëñ Tuubaa dañoo waxoon ne lu àdduna yëngu-yëngu delloo leen seen xel ca dal ga lu mat bàyyi xel la waaw waaye fexe ba delloo ko sa dal ga boo lëgatee bu jamono dalee yow nga nekk ci biti loolu kat baaxut loolu baaxul kon yàlla nu yàlla boole jàppale sant nañ bu baax a baax a baax gërëm nañ bu baax a baax jamono moo xat waaye wax dëgg yàlla fi ne nii daanaka benn waxtaan doy na ci bés waaye bés yi mel noonu macha allah ñiy jàngkat yaa ngi fi waxtaankat yaa ngi fi te xam ngeen ne bi corona bi duggee corona mu ñoom mun corona moom baaxul ci ñi daan def ay jàng yi xeeti jàng yi bi corona dikkeeg léegi programme yu bari dafa wàññeeku ñëpp a ko xam te jamono ji ñu xëy na suñ demee ci kanam ba programme yi gën a jaxasoo bawal yeeg nangam dëkk waaye lu mel ni moom bu jotee kenn ku ne faaw mu ñëw sànni ci ñetti baat ki ñëw yëkkati ñaari kàddu ñetti kàddu loolu lañ bëggoon wax ñu ngi gërëm ñëpp di sant Serigne Moustapha mii mi ngi yëkkati ay kàddu léegi di ko seere ci ñun waaye ma xamal ne leen ku mel ni moom man niiw naa gis moom mii Serigne Moustapha képp ku baax dana la yóbbu ci jawriñ sama diggante Alaaji Mbàkke moom mii moom mii la de tey dajeeg yow wax la si yow da ngaa war a ñëw ci jëwrin ndax jëwrin dafa baax nangama ki nangama ki nag bu la doo ko xam mais gis ngeen mbàkk laaj mbàkki fay ci ñi gën a baax ci àdduna la bokk waxuma ay kii di barke Serigne Touba ci ñi gën a baax ci àdduna la laaj mbàkki fay bokk nit ñi nag dañuy jëfandikoo njort xool bi mu joxee milliard bi lañ fa wax wax nañ ba teppi ko te ñun suñ murid yi rek te billaahi wallahi taala li yéene yéene defal Serigne Touba lu lu ko kenn defalu tëb taal mu ñëkk koo def xool leen fierté boobu ñu ñu waroon ci ñu waroon ko apprécier defuñ ko kenn ku nekk di wax wax yoo xam ne ku nekk dem ci Facebook ba nangam nga nangam wattu leen Facebook ak YouTube ku ciy wax dafay des te ëllëgat si bi da nga dem ba béja weex tàll di paa di maam soo lëgatee ñu xam naan la maam yaa waxoon li nga bëgg yar si naan leen ah man kay ba ma dig murid ñu naan la loo xam ci sëriñ fekk dara du ci dëgg da nga doon weddi sëriñ bi def loola neex barke sëñ Tuubaa kon nañ leen ko wattandiku ba Lamine géey ak Senghor di xew mas mën nañ leen fee nettali yoo xam ne yu doya waar la kenn mësta am ndam ci ko woon ginnaaw ko Tuubaa te du ngeen ko gis mukk ci àdduna kon nag alhamdulilah di alamin yàlla nu yàlla boole jàppale moom ñu ngi koy gërëm bu baax wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla suñu borom defar mbiram waaw ak taalibeem rafet na lool ku am jom la ku baax la ci dara jeem ba noppi ku mën a yaatal la loolu rek mooy tey moom cabax-cabaxiwul Moustapha moom dafa dal te wax dëgg yàlla xam nga koo xam ne kii ba nga juddoo ba rek yaa ngi dakaar gi nekk ci ron jëwrin fu la neexoon fu ne ñu di la dégg ko defeef waaye daanaka moom yii rek ko neex géewu murid rek kon nag alhamdulilah rabbil alamin yàlla na yàgg lool waa daayira maa ngi leen di ñaanal lii lu am solo la sagal ngeen sëriñ bi ah yëkkati ngeen fi alquran yëkkati ngeen fi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu yëpp yàlla na ko yàlla def ci seen téere jëf yu rafet waaye yàlla na leen ko defal muy liggéeyub Sëñ Tuubaa ba gën a sell asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey